Nous sommes depuis 2014 lañ fi ñëw bi ñu fiy ñëw ngi fekk eh, agression à fi et puis ay mbalit lañ fi doon et puis vraiment insécurité totale moom moo nekkoon fii ci Védène bi amul lumière amul amul dara ci sécurité ñun biñ ñëwee fii ci Védène xool ni vraiment war nañ fi mën a liggéey liggéey bu jaar yoon aménager ko mu rafet ci la ñëw aménager ko et jaar fi ñu war a jaar ci ay papier yu leer moom lañ fi toogee fii ci Védène ci la ñëw nag samp suñuy parking commencé di fi liggéey léegi ba 2017 eh, ñu ñëw indi loon ñu fi ay sommation yoo xamante si ni waa Descorch ñoo ko fi indi woon ànd ak waa Azurut biñ ñëwee sommation yi ci lañ ci lañ wax ci presse bi ci lañu président de la république dégg bi mu ñu déggee moom moo naroon ñëwul boppam directement fii ci VDN bi par la suite ci la ko conseil yi ne comme que xamuloo foofu li fa xew exactement yabalal eh, premier ministre ak euh, ministre conseil di eh, Abdou Aziz Mbaye ñoom ñaar ñoo fi ñëw direct ay 19h bi ñu fi ñëwee fekk ñu fii ñu toog ñu recevoir leen fii ci parki yi bi ñëwee ñu toog ñun ñu président daf leen a dégg ci li ngeen di ñaxtu lan la lan mooy problème bi ci lañ ne ko ñun dañoo jot fii ay sommation yoo xamante si ni waa DSCOS ñoo ñu ko indil ne ñun dañu war a quitter fii ci VDN bi. léegi ci la ñu premier ministre ne ñu jox leen ma sommation yi ma xol ci lañ ko génneel sommation yi jox ko mu liir ne ko kii ko signé man maay chef léegi xam naa dinaa ko wóol léegi téléphone seen kanam ñu xool lan la ñuy résoudre problème boobu. léegi ci la woo chef de descorte suñu kanam def ko may libre ñëpp di dégg mu ne ko nag vraiment ñii nga jox sommation lan moo tax nga jox leen sommation mu leen ñii kat dama gis ni ñi ngi aménagé ci VDN bi di fi def ay toilettes ak yooyu. ci la ko premier ministre ne ko ñii vraiment même man sax bu ma yoroon kant fii ci VDN bi dinaa fa def toilette loolu mënul ñàkk loolu warul tax aussi ñu jox leen ay sommation parce que ñii dañoo dégg Sénégal émergence président de la république woo leen ñoom ñu ñëw bàyyi li ñu doon def étranger lépp indaale xaalis bi ñu yoroon yëpp ñëw investir ko fii ci réew mi créer fi ay employés nag fii ci Védène booy xool plus de dix mille employés mi ngi fii plus de cent mille parking voiture mi ngi fii ci Védène bi et puis gars yi fi nekk yëpp vraiment ay pères de famille lañ ay euh, ay opérateurs économiques lañ et puis vraiment ay facteurs de développement lañ waaw fii moom vraiment amul dara loo xamante si ni mën nañu wax VDN bi jaaykatu oto yi ñoo fi yàq lii wala ñoo fi def lii wala n'importe quoi loolu amul fii ci VDN bi. loolu après ci la ñu prima euh, première ministre nañu léegi li ñuy def mooy dama leen di invité primature bu ma leen invité primature ñu waxtaan. léegi ci la ñu jox rendez-vous ñu dem fa biñ fa demee mu woo ministre des transports mini woo DG Azuroute woo ministre des commerce woo aussi euh, ministre d'État woo porte-parole du gouvernement woo aussi euh, DG BNDE woo aussi yeneen ministre extra extra léegi bi leen woowee ñoom ñëpp ñu ñëw mu ni ñiikat recevoir guñu fi fii ci Sénégal ñu ëpp njëriñ ñii nii parce que ñii ay jeunes lañ ba pare di liggéeyal Sénégal kon ñii gouvernement dafa soxla ngeen wax yéen ministres yi fi nekk kenn ku ci nekk ci domaine bi nga nekk naka nga leen mën a jàppale. ministres yi boobu jour bu nekk kenn ku ci nekk wax na fi nga xamante ni fañ foofu nga ñu mën a jàppale léegi ci lañ waxtaan ba juboo bi ñu waxtaanee ba juboo après waraatoon nañu am deuxième réunion ñu nag bun Abdallah boobu ba léegi nag réunion boobu amaatagul. après ci la ñu envoyé Abdou Karim Fafana Abdou Karim Fafana ci la ñu woo ñaajo ne ñu il faut ñu waxtaan pour hectares yi nga xamante si ni premier ministre waxoon na leen ko pour aménagement jëm naajo pour parking yi ñu yóbbu ko foofu futur ci la ñu waxtaan nag ne ñu dañu dañ dañuy woo pour waxtaan ci la waxtaan ñun ak Abdou Karim Fafana ba juboo si lañ juboo mu ne ñu il faut ñu amaat yeneen ñaari eh, yeneen ñaari rendez-vous yoo xamante réunion yoo xamante ni war nañ ko defaat entre man ak yéen léegi après ci la ñuy close nag yóbbul ko président léegi ci kaw loolu wa def nañ première réunion bi mu des deuxième réunion bi ak troisième réunion bi léegi ba léegi ba léegi nag loolu defaguñ ko léegi ci ci ci diggante boobu la waa Azurut ñëw ak waa Descote la waa Descote su ñëw ne waa Azurut moo leen fi envoyé ñu indil ñu ay sommation sommation yi bi ñu ko indilee benn délai 10 jours la ñu jox. délai 10 août te bi ñu koy indil boobu aussi eh, presque kenn nekk fi ay samedi dimanche dañ ko fi indi jox ay gardiens yi xam nga ñu ci bari nekk ñu woon seen place daal. waaw vraiment ñun nag euh, dara taxuñoo jóg lu dul liggéeyal Sénégal te vraiment ay ndaw lañ ay jeunes lañ te jàppale président rek moo ñu tax a jóg ak jàppale Sénégal sénégalais yi fi nekk lépp ñun loolu moo ñu intéressé léegi nag lii yaakaar naa président la république yëgu ko. parce que bu ko yëgoon jàpp naa ne lim defoon ci première sommation ya tey la koy gën a def ndax président daf ñu apprécier chaque jour message yaa ngi jóge ci président naan ñu vraiment kontaan naa ci yéen jeunesse bi parce que dépendre leen benn yoon ci état yéen a ngi créer ay emploi di jàppale Sénégal ci société bi. loolu nag vraiment ñëpp ko apprécier léegi nag fi mu toll nii leen rek lañ bëgg mooy avant ñu ñu jëlee fii ci VDN bi ñu aménager ñu jam ñaaju ba mu baax Euh, sécurité bu doy lumière et puis ay banque et puis euh, defal ñu fa ay mosquée yu mëna mën et puis defal ñu fa sécurité totale lool dal mo ñu intéressé projet Diamniadio mais fi ci Vérone mom pour l'instant mëna guñ fe tant tank amuñu fuñu dem lool rek la mais heure bu fek bu ñu joxé fuñu wara dem a dem euh, Diamniadio ñun ñëpp ñu mobiliser wo and ak l'État yobu suñu bopp Diamniadio ñun daal loolu mooñ ñu a jóg xoloo taxuñoo jóg xeex taxuñoo jóg jàmm ak salaam rek ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk.